fi jamono toll ak oto fi mu toll ak liggéey oto fi mu toll euh, bokk na ci développement wu réew ñu koy saytu di ko di ko di ko di ko toppatoo te ñi ko war a toppatoo nekk ay techniciens yoo xam ne techniciens yu yu man seen liggéey lañu donc loolu moo tax INAPAS juddu bi mu juddoo euh, recensé mécaniciens yëpp ñu bokk ci panel bi ñu wut récépissé ba am ko donc ñu ngi organiser seen seen àdduna pour que léegi mécaniciens sénégalais yi euh, améliorer. ba man ñu mën leen a joxoñ ci àdduna bi yëpp moo tax INAPAS euh, tey juddu na ba def ñaari at ñu nekk di def tey lu ñuy wax assemblée générale ordinaire pour defaat ay orientation euh, gën a organiser wu pour que mécaniciens yëpp nekk ci jàmm nekk ci salaam euh, ñëpp ñi nga xam ni dañ leen daan joxoñ ak di leen bunnu xataal ñooñu xam ni tey jii léegi UNAPAS am na mécaniciens yi am nañ day am nañ bàyyi te bokk nañ ci organisation bu mag te bu soobee yàlla euh, dinañ bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a développer réew mi. am na ci benn bànqaas bu am importance boo xam daanaka moo ci ëpp solo muy formation boobu ñu ngi ko tuddee UNAPAS académique ni nga gisee nii ci sunu éléments yi am na ñoo xam c'est des professeurs. Euh, yoo xam ne ñu ngi ci lycée technique yi am na xam ne c'est des c'est des professeurs yu nekk dans les grandes concessions ñoo xam ni formation rek moom mooy seen liggéey ñooñu ñëpp nag yàlla def na ñëw nañ biir UNAPAS ba créé fi lu ñuy wax UNAPAS académie te ku ne xam na ni fan yee ci ginnaaw euh, euh, tous les artisans dem nañu signer benn convention ak centre de formation des professionnels bi nekk Diamniadio te suñu professeur Tavares jiite ko donc ci pilier boobu la académique euh, la UNAPAS académique di supporté wu dans un premier temps pour di former mécaniciens mais ci biir loolu am nañ suñu panelu bopp boo xam ni ko tuddee échange technique et vente échange technique et vente tey permettre na euh, techniciens de l'automobile yi sont ci Sénégal yëpp ki nekk Kolda ki nekk Ziguinchor ki nekk Saint-Louis ku mënti nekk ci instant bi situation technique boo mën a am da nga koy sont ci biir mu nekk genre forum euh, ñu ñu orienté la ci vraiment les éléments techniques qu'il faut pour que vraiment nga mën faire def opération comme nous nga ko ndax euh, technologie oto fi mu toll tey euh, au sein de l'UNAPAS ci sunu biir am na ñoo xam ne dem nañ fu nekk wër nañ àdduna xam nañ lépp lu xew te bu ngeen seetloo Sénégal amul même oto bu fi génn on mille en 2022 oto bi génnoon janvier 2022 tey mi ngi ci réew mi te teguñu ko ci bato yóbbu ko feneen pour dépanner ko fii bu paane fii lañ koy dépanner bu entretien jotee fii lañ koy def loolu nag li ko waral mooy dañoo nekk di weccoo suñuy xel ak suñuy xalaat ba pare dem di gëstu ji